liggéeyal yàlla dañ lay dolli soo ko gëmul laajal Seex Abdulaat Mbàkkeem Sëriñ Tuuba aousubillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi yéen ñi seetaan di ñuy déglu ñu leen nuyu te leen siyaara di nuyu Seex Sidi Mbàkkeem Seex Abdulaat di ko ñaanam yàgg fi te wér moog rakkam yëpp waaye di nuyu mboolem dongay tarbiya yi nga xamante ne ñuy bàyyi xel ci àdduna wërgal kàpp di jiital suñu jëwriñ ba Abdou Diouf mi nga xamante ni moom la yàlla dogal mu jiitee daayira bi ren ji nañu toog fii wóotu ko ci kàddu yi nga xamante ni moo ñu ko bàyyee mu mel ni leen leen rek la muy wooteeg màggal Cheikh Abdou Lahad ginnaaw bi nga xamante ni sëriñ si di dem na ci moo Cheikh Mouhamadou Mountakha ba jël ndigal ba noppi ndigal loolu nag mu yeggawaat ko ci ñun mu mel ne ñun nag ñooy ñi nga xamante ne ñoo nekk ay sordaal sordaal ci kër gi war a taxaw mboolem loo xamante ni lu nit yittewoo la muy daayira sant daayira bi nga xamante ni moo lëkkale doo ngay soppee yëpp kon ñu ngi leen di soññ bu baax a baax góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ndaw ñi ñëpp mboolem doo ngay nekk ci bitim réew ñëpp ñu ngi leen di soññ ci fan daan baaxoo jaar ba nga xamante ni bis bi dana jàkk ñi nekk ci réew mi ñëpp ñu ngi leen di soññ ci ñoom it fan daan jaar ba ñëw ak ànd ak liggéey bi ci ni nga xam ne doon la ko sëriñ bëgge mu mel ni ne waaye daaw bi bi mu jàllee sëriñ bi rafetlu na ko kon nag ñu leen di soññiwaat ci loolu noonu ci fànn yëpp ñu tàmbali ko ci ni ko suñu bëggee jiital ci njàngu alxuraan bi kenn ku nekk fa nga nekk yaa xam da ko jàngal sa kër wala da nga ko jàngale ku la ko jàngal wala ci daara yi ñu ngi ci soññ ñëpp waaye di soññi ñi nga xamante ne ñoo nekk ci waañ wi muy jigéen ñi ak seen njiit ñi nga xam ne wala dinaa jiite foofu noonu di Abdoulahat Diouf Abdoulahat Guèye Mbora ak mboolem commission yi nga xamante ne ñoo tënk ci nekk ci dayra bi ku ci mel ni sëñ Talla Gueye mi nga xamante ni moo yore organisateur naka noonu Cheikh Abdoulaye Dieng mi nga xamante ni mooy secrétaire bi nga xamante ni lu bari ci loxoom la doon la doon jaare Cheikh sëñ Cheikh naa jaxte moom dina ñëw ci mbir mi nga xamante ni moom la féetee muy culture ak sëñ Abdoulaye Gueye ñoom ñi yore communication ñoom ñëpp ñu ngi leen nekk fa nga war a jaar nga jaar fa ba la nga xamante ni moo jegal bis bi nga fexe ba loola kenn mën a jaaman kon daal mbir mi mooy soññee rek ñu xam ne daal ñun aw sas la nam sas bi nag ku am da ngay fexe ba mu bañ a booy comme sëñ bi dañoo sas nag nan fexe ba nekk ci ndigalu sëñ bi xëy fexe ba teel a ñëw teel a ñëw ci kër gi fexe fee mujj bu ñu xëyee xëyee liggéey ba liggéey bi yegg tamit bu ñu xëyee nan daan def bale kër gi ba mu set delluwaat bagages yi yëpp ñu defaat ko nan ko nan ko daan defee loolu mooy li nga xamante ni moom lan tënk bëgg kon nag ñu leen di woo yéen ñëpp di soññee baax tamit ci liggéey daayira bi asalaamaaleykum wa rahmatullah suñu kàddu nag dañ koy jëmale ci euh, base bi nga xam ne moom la am ci kër gi te war koo dundal di bésub xasida boo xam ne dañ ko war a amal ci guddik gi am ci ay programme yoo xam ne dañu bëgg ñëpp rek teew ci te dundal ko ci xasida ak alxuraan su ko defee xam naa bu zéro heure jotee danañ am programme boo xam ne ci lañ ci la ñu tàmbali programme bi ci njàngum kuréel suñ ci ab conférence bu bu bu bu jotee dana am conférence bu amal ci kër gi bu deux heures jotee dana am kuréel yu ñëw tàmbali njàng moomu kuréel fi ba trois heures du matin bu trois heures du matin rek jotee Cheikh Abdoulaye Diouf dana ñëw àggale guddi gi di njàngum aw ak comme nuñ ko waxee noonu njàngum aw njàngum kuréel ak conférence kon loolu mooy programme bi nga xam ne moom lañ amal ci base bi te di ci woo ñëpp ñu ñëw teew ci ànd ak ñun guddi gi. ñu nag wax nag ci comme secretaire général u bi. li sëñ Fall waxoon rek la ñuy wax yoon yi moom ñakk ak ñuqi la lépp loo xam ne aw ñaq koy taxawee bu kenn fendi lépp loo xam ne ñuqee koy defar dencukaay bu fa dara des képp koo xam ne bokk nga ci daayira bi te la nga warloo ci aw teg defagoo ko nang ko def matal ko te nu mu gën a gaawee képp koo xam ne tamit am na poste bu ñu la joxoon wala fu ñu la féetale woon di la fa liggéeyloo na nga ñëw ndax ñaar yooyu ñoo ànd te def ko nu mu gën a bala ñuy jébbali dayre bi. dalal ñëpp di ñaan yàlla yóbbu ñu ceeg jàmm di soñ ñëpp ci njàngum alxuraan xasida istixfaar salaatu ala nabi ak lu waay man ci lu baax sëñ Abdou ñi mu wër bor dama ko fay te képp koo xam ne rek eh, am murit ngay sëñ Abdou lebal na la kon ginaaw bi loolu jàllee ñoo ngi leen di soññ bu baax ci waañ wi ci togg yi rawatina doo ngay saay ak soppe ak turandoo yi ñëpp ñu leen woo ci waañi ngir liggéey bi liggéey bu yaatu la boo xam ni kenn ku ne am na noo ci mën a taxawe ba bis bi jag moo xam communication la wala hébergement wala restauration wala képp koo xam ne am nga loo mën a fob indi ko ci berne wala yooyu boo jokkoo cellule de communication dayra bi lépp loo fi indi dañ la ko defal fa nga bëgg mu dem fa ñoo ngi soññ it ah, mboolem ñi nga xam ni ñooy dayre yi jóge ci yeneen dëkk yi di ñëw ci kër gi ñu ngi leen koy soññ bu baax ñu jóge Daaru Salaam ak ñëpp ñu waajal ko te teel a ñëw te ñu mobilisé wu buñ bàyyi kenn ñoo ngi soñ ñëpp di leen bàyyi loo baas bi Abdou Lahad Diouf moo koy jàng ak sëñ Mourou Fall xasida dinañ fa amal njàngam kuréel it ak conférence boo xam ne dañ koy amal wasalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Abdoulaat ku mu jamonul jariñ na la boo ko yëgeeg boo ko yëgul jëfal na la